la xalaat daanaka mi ngi mel ni programme yi fi indi yëpp sax xalaatu nit ñi la wax dëgg yàlla loolu moo tax njukkal gi moom yaay na ci ñoom waaye ba tey itam comme live la am na ci yoo xam ne xam nañu programme bi li ko tax a jóg xam na boor yi nga xam ne moom la ñuy laal ñuy ñaan képp koo xam ne yaa ngi waxtaan rek nga dugg ci anam boobu nga xam ne li ñuy waxtaanee daal dafay nekk loo xam ne askan wi yëpp lay yëkkati incha allah rabbi kon nag ubbi nañ line bi 437 3910 437 5905 ngeen dugg ci programme bi eh, yéen lañ ko jagleel tey eh, moo di njukkal li nga xam ne moom lañ leen di delloo eh, xam ngeen ne marinière bu rafet bi ma sol nii nag Aata Diallo jóob moo fi jaar comme ni fi daan jaaree rek ñu gërëm ko bu baax a baax a baax borom Atas boutique nomba yaa ngi noonu ci téléphone bi mun ngeen a call ngeen joxe seen xalaat li nga xam ne moom ngeen bëgg programme bi li ñu war a waxtaanee ngeen gën ñu ci yokk xel. Euh, loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen jagleel tey Serigne. waaw léeg-léeg li ma ci mooy bu nekk ay daal dafa mel ni eh, ñu ngi dugg si kii ni ko suñu maam yi daan waxee feetu Christmas. Mm-hmm. muy Christmas. Mm-hmm. muy loo xam ne dañu ko bokk ak eh, suñu bokki chrétien yi. Mm-hmm. te réew mi. Eh, dafa am loo xam ne lu jafee fekkale ci yeneen réew hmm. ndax <coughs> réew mi fii bu jullit yi xewlee ñoo kercen yi ñoo ko bokk hmm. bu kercen yi xewlee ñoo jullit ñoo ko bokk hmm. kon mu ngi mel ni diine yëpp doo leen xàmmee fi ñoo ràññaat leew rek mooy bu kenn ku nekk jóge jëm fa nga xam ne fu fa nga jaamoo sa borom waaye lu mooy loolu di gis ne waaw di nga gis ne li ñoo gis rek mooy ñëpp benn lañ mhm. ñu dem ba xam ne sax ñu ngi sëyante ci suñu biir mhm. kon loolu mooy jàmm ji nga xam ne am na ci diggante diina yi mhm. ak yaatal gi nga xam ne réew mi yaatal na ko ci diina yi ci wàlli wuute pour mu doon jàmm kon loolu ñu ngee ndokkeel ñi nga xam ne ñoom ñooy waajal feet googu eh, yàlla mais ñu ñu fekkee feet yu bare bare bare bari allo أمنا خداك شلائم السلام عليكم Hello وابس Hello السلام عليكم وعليكم السلام نعم ده نسنت يلا ااا نيجي نسيا ربا نعم يلا نعوزيا سنتوم سنتوبة سن آه، خير عبد الله إدرامي كم تي عبد الله إدرامي درامي درامي خير da ngay déggee bu baax. jërëjëf dara jërëjëf. dem ñaanal yàlla fan wér. ndax rajo am na solo. macha allah. dafa nekk ne man su ko nu ma ko seetee. waaw. comme lu yàlla wax ci alquran loolu ngeen kuntum ummatan bil wa tanhawna anil munkar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu tax ngeen kër yéen xeer yi mooy da ngeen ciblé lu baax da ci tere lu bon loolu man jàngee naa ko bagage bu baax ah, maa ngi nuyu seen papa Serigne Faye ah, di ko xoolee comme mu ngi jur saa alxaaji Babacar Sam damaa koy jigéen bu baax ak sama euh, yaay ji yàlla na yàlla fay ndax lii nekk na loo xamante ni koo jàng tamit ah, waaw ñi ñu ngi seen cofeel seen cofeel mm, loolu am na solo. Mm. Eh, kon naa keneen bu bu ne ci line bi rek. Eh, mm. yéen lañ jagleel programme bi ku ci nekk nga joxe sa xalaat eh, loolu dina ñu dimbale allo asalaamaaleykum. allo. waaw wàññil télé bi tuuti rek ndaw si. wala nga sori ko tuuti. waaw bisimilah. waaw bisimilah. allo. kooku dafa mel ni rëcca nañu. Mm. Euh, waaye mu jéem a duggaat rek euh, programme bi yéen lañ ko jagleel ngeen jox ñu seen xalaat ci programme yi ñu ni nen la loolu mooy suñ jubluwaay euh, loolu la tur bi umba am na keneen ku nekk ci laan bi salaamaaleykum ah kooku yu wëcce na Babacar waaw El euh, Hadj Serigne dafa nekkoon fu am solo. ñu mhm. gërëm mbokk yow yi nga xam ne ñu ngi jéem a dugg lu métti mhm. la na nga bëgg a dugg jafe waaye xam naa euh, lu jot yomb comme ni ñu koy waxee. Mhm. gis nga li ma waxoon sànq mooy yal nañu yàlla may jàmm yu ñu xam ne jàmm la. pour nga toog fii xam ne ñëpp fi te ku nekk yaa ngi yaa ngi tal sa bopp. yaa ngi yoo xam ne dañu wax ne soxla bu nekkee ñaar dafa fekk nga am jàmm moo tax. jàmm nag fiir fiir goo xam ne loo loo loo loo ci loo loo loo gàtt ite na la leer ne bokk na ci dundal jàmm ki ci des nga nangul ko moom ak nekkinam. salaamaaleykum. hello. hello yaa ngi ñu neen la. téléphone bi nekkul dafa mel ni déggoonte wu ñoom hmm. ñoom de waaw. da gis eh, da gis ci jamono ñu toll ci jamono bi ñu toll ni boomante bi bëree ci àdduna. Hmm. te xatal xatal rek moo ko def. Hmm. yàlla dafa yaatu. te it bu ñu fàtte mu ko ne moom moo bind te ba mu bind la ko soob la bind. bu ko neexoon ñëpp salaamaaleykum. allo. allo. waaw allo. allo. waa ndaw si yaa ngi ñu ni neen la. aha yéen a ma dégg waaw bu baax sax asalaamaaleykum waaleykum asalaam maa ngi leen di dokkale ko ci programme bi jërëjëf ka sa wàlla am na ngi lay dokkale sa sant bi rëb na jërëjëf seen bi jekk na lool Puro gran bien, yo bastante, ni nada hace de llama. No hay boden, no ni siquiera hay que bajar. Yo me una mi hermana de pulmón. Mm. Uh -huh. Como una dona, como que amo lo bajar, si me hombre, yo como una hija. Mm. Y yo me entiendo, me han venido a vignar, yo me han sacado de lo que me boo defee réeru dafa am nag waaye boo leen di nemmeeku wante soo amee may ko bu amee may la bu ñemeñee su amee loo xam ne neexu ko mu ñëw wax la la su ko defee ngeen mën a yërëmante dëgg la bii nag moom réewu nag def mi ki tey soo xoolee su mbedd bi réewu jàmm la ne fu nekkaa ngee toppatoo soxlaam doo xaamee jullit bi doo xaamee christian bi doo xam ne beneen xeet